anoo léewtoo bu fekkee caaxaan dem na dëgg des. Mm-hmm. ñi arrivé ci làmb yëpp yéen a tax parce que léewtoo doyen la tey ci làmb. Mm-hmm. parce que bokk na ci euh, média yi jëkk ci làmb ji. Mm-hmm. ñu créé ko uniquement à part sunu làmb journal bi wax sunu làmb léewtoo moom ñi seen yi ko mag ci làmb bariwul. parce que lépp làmbam la. donc ñu ngi koy seetaan information yi baax na. am ngeen ay caméraman yu am xam-xam. am ngeen ay taskatu xabaar yu am xam-xam surtout yow xaw ma nu ñu def ba décroché la parce que yow làmb nga li nga may laaj yaa ma ko gën a xam. tubaarkàlla macha allah man man yow yow na fi jaay. mais Thialis nuyu na la. na ko caalis suma rakk la suma doom la. Mhm. ndax euh, xam nga ndakaaru boo fi ñëwee. Mhm. Thialis baayam. fi mu juddoo maa ko man ni sa papa fii la juddoo sa yaay fii la juddoo kenn du ko wax ci Sénégal mu ngi may dégg bu ñu demee njaare may la seen kër gi nii fii la baayam dëkk fii la ndeyam dëkk wax la baayam fi mu bokk wax la ndeyam fi mu bokk ndeyam ñoom ay sëriñ lañu ci benn boor papaam sunu baay la sunu mag la sunu xarit la waajuram damay jël sama téléphone di ko woo jamono ju daf may wax ne ma est-ce que Pape Thialis a ngi ñëw ci yow ma ne ko waaw te fekk Thialis juróomi at gisuma ko. xale ma ngi ci yow nag tey biñ ne ñu ngi ñëw mu ne nuyul leen ma ko xam naa. dinaa ko waaw xam nga lu sotti am borom. ndax li TV Leewtoo TV Leewtoo TV ah, ak kuréelam ci ci ko keree laa bokk. parce que magam Abdoulaye Sylla mu ngi may seetaan di ma dégg. Abdoulaye Sylla yaa ngi may seetaan. xam nga xam naa yàlla xam na. tegal sa baaraam foofu ñu xuus jàll ba tey rek ñu nekk nag ci ay grand affiche yoo xam ni après pandémie bi nga xamante ni comme làmb ji sooxe woon na après ñu nekk ci ay combat yoo xam ni jàngat nañ ko ku mel ni euh, Boy Niang ak euh, Boy ak euh, Tapha Tine noo ko jàngate waaw foofu damay féliciter promoteurs yi. boobu sa doom a ko tëgg. caalis waaw caalis a ko tëgg. Mhm. di ko ñaanal yàlla na sottee jàmm. Mhm. ndax xam nga bi muy dugg ci làmb fekk na boobu maa ngi nekk RTS. Mhm. caalis républicain bu mag la. ndax bi mu ñëwee am na télécom mais def ne moom télévision nationale. bi àddina bépp bokk Sénégal bokk ci lay dem. tëgg fi ay combat Tapha Tine ak euh, Yékini Senior tëgg fii boo jéen kayri tëgg na ay combat yu am solo combat yëpp egg ci jàmm amul xeex amul xuloo bi muy dikk ci làmb ji di décroché combat boobu mhm. amul kenn ku tëgg combat bu tol noonu mhm. lim génne ci alal def ko ci mhm. combat ak Tapha Tine combat bi may fàttali mooy combat bu mbay Guèye la Tigre de Fass 73 ak Double Less lu tax nga wax loolu taay yi loolu la ma jox. Mhm. seen taay. damay indi mbay géey def ko muy booy Niang jël Double def ko muy Tapha Tine. Mhm. muy combat boo xam ni mën naa wax ni combat dootu ko dàq ci àddina. cinquante cinquante loola. noo xam nga cinquante cinquante ci làmb. Mhm. xam nga man bu ma demee ba mbër yëpp maay seen bàyyi léegi. xam nga làmb boo de kuréel boo dee ba ku ne yow ne la papa. amatoo droit wax li nga xam. li ma xam duma ko wax. damay wax li rafet te baax. Mhm. cinquante cinquante ndax xam nga lu tax. faal daf ma waxoon ni ma làmb ku ci man fekk ci fii la ma ko waxee woon ni ma làmb du ak maas dabante la te mbër mu mag mu ne mbër mu ndaw lay sippil tafaatin nag dafay mbër moo xam ni ba tafaatin ba léegi bëreegul hmm? ba fii may wax ak yow tafaatin li mu xam ci bëre bëreegu ko parce que dajeegut ak ku mu jàppanteel ngeen di bëre di wuti feem mbëri bëre. di mbapat di mbapat. booy ñan dafay doomi mbër baayam juddoo foo xam ni 1939 40 mbay ja Diop bi muy bëre ak euh, booy séréer Ndiaye. Mm-hmm. Elimanel Fall tëgg làmb ji ci ci ci ci ci hippodrome Latigay Ndiaye ci jaareem la ko tëggee. foofa la bàyyam juddoo déegool bàyyam bàyyam di xanaa xamoo ne déegool ku mos a jàpp sab tànk nga tëdd ba pare booy ñaŋ du réer ci bëre tabarkàlla sama xaadi xii na da koy liir da koy liir moo tax ma xam ni caalis tëgg a combat jànq boo xam ni benn combat la bu neex bu neex moo ñu léegi nag dem ci loo xamante ni mooy Modou Lo Ama bala ma ñëw ci Ama Baldé ak Modou Lo